أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من بسم الله الرحمن rahmaani rahiim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammad sayidi alawalina wal axirin wa alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman kathiran ila yowm alqiyamati yowm ddin amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan di ànd ak ñun si Islam TV ak fu ñu mën a nekk si àdduna di leen ziyaar bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq Mm-hmm. ñu fas yéene àndaat ak yéen comme niñ ko baaxoo si manzuma bi ñuy chara muy al manzuma al bayquniya suñu bind bi weesu woon ñu tolloon fii boroom manzuma bi di leeralee li ñu tuddee al muttarib al muttarib nag buñ ko waxee mooy lépp lu ñàkk dal su dee nag sib xadis mooy xadis boo xamante ne ak wuute gu tar moo ci am ba mënee suta xam la gë la wér ci xadis booba ba mënee suta lënkale wuute googa ba xam anam ba sa gën a mucc ayib ba wala ba sa gën a wér loolu la ñu tuddee al ngir loolee nag am wax nañ ne lu jafe lay doon ndax ak wuute moom mënta ñàkk ci xadis waaye nag wuute wu nekk rek da nga gis ne borom xam-xam yi am na fu ñu mën a jaar ba mën a xam la wér ak la wérut la sax ak la saxut la say njuumte ak la sa du njuumte moo tax pour mën a ànd si xadis ne lii mutarib la loola jafe na lool lool lool bi mu jógee foofu nag mu ñëw ngir leeral li ñu tuddee al mudraj mu ne wal mudrajaatu fi lxadiisi ma atat من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج من والمدرجات المدرجات بنك وخيل ولا جمع له mooy lépp loo xamante ne dañ kaa ndëxëñ ci xadis bi lépp lu ñu sof ci xadis bi te bokk sax moo xam dafa nekk si càllale ga wala mu nekk si matn ba donte moom fii lim ba lim lim bëgg gën a jàngale mooy mudraj bay ñëw di nekk si matnu xadiis mu ne nag wal mudrajaatu la ñuy tuddee al mudrajaat te benn ba di al mudraj te al mudraj buñ ko waxee mooy lu ñu lu ñu lëmas lu ñu laxas moo tax xale bi nga xamante ne nii dañ koo laxas si ay laltaayam dañuy tuddee loolu al mudraj néew bi nga xamante ni dañ kaa laxas si perkaalam loola dañ koy tuddee al mudraj mooy udrijal maytu fi ak faanihi mooy laxas nañ ko si si perkaalam ak lañ ko war a lëmasee loolu yëpp mudraj lañ koy tuddee comme que yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy gëstu xadisu yonentu sallallahu alayhi wa sallam su dee xadiisam dafa ñëw waxu keneen ku dut moom jaxasoo ko ay waxam loolee dafa mel ne dañoo mujj nekk benn mbir mi te fekk ne nekkuñ benn mbir ndax dañ leen a war a teqale loolu nag lay leeral moo tax mu ne wal mudarajaatu la ñuy tuddee al mudarajaat fi l xadiis yi tamit ñëw si xadiis mu ne loolee de boo ko bëggee xam mooy maa mooy lépp loo xamante ni atat dikk na min baadi alfaadi ruwaati tasalat mu ñëw si baatu ñi nga xamante ñoom ñooy nettali xadis bi ba pare jokkaloog xadis ba daal di jokkaloog xadis ba nga xam ne kenn du leen mën a teqale ñoom ñaar ba nit ki kay dégg da yaakaar ne dafa bokk si xadis yi yonent sallallahu alayhi wa sallam te bokkul si xadis yi yonent almudraj nag loola moom day ñëw lu bëri si xadis yi nga xamante ne dafa wér moo tax da nga ko fekk si saxiixul Buxaari da nga ko fekk si saxiixu Muslim da nga ko fekk si yeneen téere ya maanaam xadis mën naa ñëw wér ba pare mu am mudraj ndax jëmmi mudraj bi muy baat ba nga xamante ne moom moo sa dolleeku te bokkut si baatug yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu ak njuumte lay lay amee mooy sëriñ bi nga xamante ne day nettali xadis bi di ko leeral wala mu nettalee ko anam boo xamante ne ñu nekkoon si jataay ba am na ku ko si déggee noona moom mi ko si déggee wut noonu njort ne lépp baatu yenent la fekk ne du baatu yenent saydatuna aïcha radiallahu anha aïcha bi muy nettali xadis bi nga xamante ne nii mooy njëlbeenug yónni gi ñu yónni yenent te leeral fa ne yenent sallallahu alayhi wa sallam da daan dem fi ñu tuddee xaaru xiraa di fa wéetal boroomam subhanahu wa taala baat ba mu jëfandikoo moomu Aïcha daf ne yataxannasu yataxannasu fi lgaari allayaaliya zawaat al adad aw zawaati al adad xunt boobee dafa daan nekk di jaamu boroomam guddi yu guddi yu limu kenn kuy nettali si xadis bi di alimaamu zuhri bi muy nettali xadis bi mu àggee si yataxannasu daf ko bëgg a firi daf ne wa huwa taabudu te loola mooy mooy jaamu sa borom subhanahu wa taala képp kuy jàng xadis boobee yow mën ngaa jot ne lii kàddu ga Aïcha la fekk la ko waral mooy firi gu sëriñ bi doon firi baat ba taalibe ba yaakaar ne loola dafa bokk si xadis ba fekk ne bokkul si xadis bi kon loolu mën naa nekk sabab bi tax mudaraj bi di am si xadis bi waaye mën naa nekk lu koy sabab ay temps mooy ak njuumte ak njuumte mooy moom taalibe bi de nii la ko déggee si sëriñam fekk ne moom nam mu ko déggee da see juum keneen ku dut moom wuute naa ak moom si loola. comme xadisu abi hurayra bi nga xamante ne albuxaari moom moo ko nettali si téeréem ba abu hurayra nee na yonent nee na lil abdil mamluuki jiraan bépp jaam boo xamante ne dañ kaa moom am na ñaari ñaari payoor xadis bi noonu la ko Buxaari métti daal di si tofal leneen mu ne walladi nafsi bi yadihi maa ngi giñ ki nga xamante ne nii moom moo moom sama bakkan Abu Hurayra moom mooy wax ba léegi jëlee si yenant lawla al wa wal xajju wa birru ummi la ahbabtu an amuuta wa ana mamluuk su dul woon jihaad gi nga xamante moom laa nekke ak aj màkka ak baaxe sama waajur bu jigéen kon de dana mébét su may faatuma fekk ne dañ maa moom xam nga wax ji soo ko déggee lépp dañ ko askanale yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye yow nga xamante da ngaa tuuti xel soo ko càmbarlee da nga xam ne am na lu si bokkul si waxu yonent ndax foofee ma ngay wax ne bu dul woon baaxee sama wayjur bu ku nekk xam na ne yonent ba wayjuram bi jigéen di faatu booba xale su ndaw la laataa ñu koy yónni laataa ñu koy jox risaalaam ni ko noonu tamit yonent sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla jox moo gën a kawe fuuf maqaama ñu daal di lay moom kon naka lay mébétee ñu moom ko mu nekk ab jaam te yàlla jox na ko lu ñuy tuddee maqaamu nubuwa muy yàlla moo ko yónni yónni ko si mboole seen nit ñi loolu mënta nekk waaye bu ñetteel bi mooy xadis bi boo ko jàngatee dafay mel ne yonent sallallahu dafa dëkkee woon di aj màkka te ku nekk xam ne ne yonent bi yàlla farataalee si jullit ñi ñu daal di aj benn aj kese la aj muy aj yooyu ñuy tuddee xajjatul wadaa kon foofa am na lu nekk si xadis bi loo xam ne dañ ko see ndaxëñ laxas ko si xadis bi mu mel ne waxu yonent la fekk ne waxu du waxu yonent loola nag ngir nga xam ko il faut nga jamu mooy dajale yoon yi nga xamante ne moom la xadis bi ñëwee soo ko dajalee dëgg dëgg dëgg si ngay mën a xam ne ndeketee am na ak njuumte wala bokk am na lu si nekk luñ boole si xadis bi te bokk si moo tax bi ñu bool delloo si yoon yi dellu si li ñu tuddee saxiixi muslim foofa nag leeree na fa ne liñ tuddee walladi nafsi bi yadihi loola waxu abu hurayra la waaye du waxu yenent yenent moom waxam ma nga jeexee ajraani mooy lil abdil mamluki ajraan képp koo xamante ni jaam la bu ñu moom ko kooku yàlla dina ko jox ñaari payoor abu hurayra nag après moom moo doon mébét moo tax si saxiixi muslim foofu abu hurayra lan la wax walladi nafsu abi hurayrata bi yadihi maa ngi giñ si ki nga xamante ne nii moom moo yore bakkanoo abu hurayra te mooy borom bi subhanahu wa taala bu dul woon li may baaxee sama wayjur ak bu dul woon jihaad gi nga xamante ne moom laa nekkee ak bu dul woon aj màkk gi nga xam ne dama koy def at at mu nekk kon de danaa bu may faatu la ma gënal mooy ma daal di nekk jaam bu ñu moom ngir ma am ñaari payoor yooyu nga xam ne yéen a tudd na ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax mënoo xam ne lii mudraj la mooy dañ kaa yokk si xadis bi te bokkut si lu dul da ngaa gis beneen càllale beneen riwaaya beneen nettil boo xam ne moom mooy teqali ñaari baat yi moo tax imaamul xatibul bagdaadi téeréem ba mu tuddee ko noonu al alfaslu lil wasli al mudraji fi naqli mu ne alfaslu mooy teqale bépp xadis boo xamante ne nii dafa am idraaj ñu boole ko si waxu yenent ñu boole ko si xadis yu fekk ne loole bokkut si waxam ma nga bàyyee ko sa ñu nettali xadis bi mën naa nekk waxu saxaabi mën naa nekk waxu keneen ku dut moom waaye moom du waxu yonent du jëfug yonent dañ ko boole si xadis bi loolu ñu tuddee al mudraj kon loolu la jàngale fii moo tax mu ne wal mudrajaatu li ñuy tuddee al mudrajaat nag moom fil xadis mooy maa mooy lépp loo xamante atat dikk na min baadi alfaadi ruwaat bàyyeekoo si baat baati ñay nettali xadis boobee waaye nag ittasalat mu jokkoo xadis ba ba mel ne benn xadis comme ni ma ko leeralee si misaal yi weesu woon ba mu jugee foofu nag muy leeral li ñuy tuddee riwayatul mudabbaj mu ne wama rawa kullu qarinin an axi mudabbajun faarifu xaqan wantaxi mu ne wama rawa lépp loo xamante ni nettali na ko kullu qarinin bépp maas an axi si si moroomam moomi si moroomam moomi nee na loola la ñu tuddee mudabbajun loola la ñu tuddee mudabbaj waye lii moom borom woy bi wax ne mooy lu moroom di nettalee si moroomam yem foofe loola du loola kese lañuy tuddee mu dabbaj waaye il faut ku si nekk da ngay nettali jëlee si sa moroom ñu soo koy tuddee mu dabbaj waaye su fekkee ne kenn rek moo jëlee si keneen ka loola riwaayatul aqran lañ koy tuddee riwaayatul aqran ak ak ak riwaaya al mudabbaja bokkut ñoom ñaar bu fekkee ne mudabbaj la mooy ku si nekk da nga jëlee si sa moroom al imaamu malik ibnu anas bu fekkee ne jëlee na si zaidatu zaidatu ibnu qudaama ñoom ñaar ay maas lañu woon zaida jëlee si malik ibnu anas loolu la ñu tuddee mu dabbaj waaye su fekkoon ne benn côté bi rek moo jëlee si moroom ma zaida jëlee si malik kooku riwaayatul qarini lañ koy tuddee mooy maas moom moo jëlee si moroomu maasam waaye keneen ka jëlee wut si si kookee nga xamante moom moo jëlee si moom kon mu dabbaj il faut que wecconte day am ñaari xar yi ni ku si nekk da ngay jëlee si sa moroom ñi ngi ko tu tudd jëlee si diibaajatul wajhi mooy xar kanam dafa mel ne ku si nekk da ngaa sa moroom jëlee si sa moroom comme ni taalibe bi di jàkkaarloog sëriñam di jëlee si moom xam-xam wala di jëlee si moom xadiis lu tax boroom xam-xam yi nag di yittewoo lu mel nii mooy lu mel noonu su fekkee ne dafa am si càllale kii gis loolee mën naa yaakaar ne lii ak njuumte la ndax lii cosaan mooy nit de fa muy xam-xam mooy si sëriñam ak ka ka féete kaw ak ka ka féete càllale waaye moroomam moom lay cosaan si moom du jëlee si moom lu bari bari waaye nag am na si càllale yi su ko defee nit ki bu gisee lu mel noonu yi du ko yaakaar ak njuumte moo tax borom xam-xam yi leeral loolee nga gis ne ñoom benn pàcc boo xamante ne ni day aju si fànn bi te njuumte mën sa am bàyyiwuñ ko lépp leeral nañ ko bal dañ see taalif ay téere moo tax lii nag mu ne xam ko bu baax nga daal di koy ràññatle ak leneen lu dut moom ba mu jógee foofu nag mu ne muttafiqun lafdan wa xattan muttafiq wa didduhu fi ma na al muftariq fii nag mi ngi xamle njuumte yi nga xamante ni mën naa am si tur yi fekk na nañ leen bindee ak nañ leen di waxee ñoom ñoo bokk mu njëkk a jàngale li ñu tuddee al muttafiqu wal muftariq al muttafiqu wal muftariq dafa am ak mu'talif wal muxtalif bu ñu nee al muttafiqu wal muftariq mooy ñoo xamante ne ñoo bokk nañ leen di bindee bokk nañ leen di nañ leen di nañ leen di waxee nañ leen di liiree su dee nit ki dafa tudd Muhammad baayam tudd Abdullah kële tamit tudd Muhammad baayam tudd Abdullah laa shakka ne ñoom ñoo bokkale lépp dañ naan Muhammad ibnu Abdullah kële tamit Muhammad ibnu Abdullah loolu tey jii boo ko doon xool si ñuy nettali xadis dañuy bari lool ku delluwoon tey jii si téere yi ñu tuddee kutubu tarajim nga bëgg a xool ñu tudd Muhammad ibnu Abdillah ay nit ñu bëri ngay gis ay temps dañuy bokk même génération waaye naka nga mën a ràññeet lee ne Muhammad ibnu Abdullah mii de bokkut ak Muhammad ibnu Abdullah male Muhammad ibnu Abdullah ba dëkk Saalum bokkut ak Muhammad ibnu Abdullah ba dëkk Kajoor noo leen di ràññeetle dëgg la tur yi benn la tur yi benn turu baay yi benn la waaye jëmm ya du benn kon ñoom muttafiq mooy fi ñu dëppoo mooy si tur ya fa ñu teqalikoo nag mooy si jëmm ya jëmm yooyu nag teqalikoo ko mën naa feeñ bay jeexital si seeni xadis su fekkee ne kenn si ñoom ñaar ñooña wala kenn si mbooloo mooma ay xadisam dafay wéradi il faut nga ràññeetle ñoom ñaar ñooña suñ nettalee nettalee jëlee si même sëriñ bi kan la doon si ñoom ñaar waaye su fekkee ne ñoom ñaar ñëpp seeni xadis dañ koy jël comme ku mel ni Sufyaan ibnu Uyayna ak Sufyaan ath-Thawri su fekkoon ne dañoo tudd baatu Sufyaan nga kese bañ yem si turu baay ja ne Sufyaan Sufyaan ñoom ñaar kan la si tur yi ñoom ñoo ko bokkale te ñoom ñaar ñëpp bokk nañ benn génération bokk nañ ay sëriñ naka nga mën a xamee kenn si ñoom ñaar même boo ko xamul loola du jeexital si xadis ba ndax moo xam da nga ne Sufyaan ath-Thawri la wala Sufyaan ibnu ñoom ñaar ñëpp seen xadis des koy jël waaye su fekkoon ne kenn si ñaari Sufyaan yi ay xadisam dafa wéradi xamuñ kan la si ñoom ñaar ndax tudduñ turu baay ji foofee moom loola day jeexital si xadis ba moo tax loola boroom xam-xam yi daal di siy taalif comme al imaam al xatib al baghdadi taalif na téere bi ñu tudde al muttafiqu wal muftariqu lil xatib al baghdadi bi mu jógee si lool nag mu ne muxtalifun muttafiqul xati faqat wa didduhu muxtalifun faxshal galat bu ñëwee nag si muxtalif al daanaka moom mooy safaanu lëlee mooy ni ñuy bindee tur bi de noonee la bind bi si wàllu rasm muy su fekkoo ne dañ koy dessiner niñ koy dessiner mu benn dessin bi la waaye nag boo ko bëggoon a boo ko bëggoon a liir day am ak wuute tey yi su fekkoo ne dañoo ñëw si ñaari nit kenn ki tudd salaam kenn ki tudd salaam <clears throat> niñ leen di bindee benn bind bi la amul wuute si si bindin ki salaam ak salaam donte lële am na shadda waaye nag ngir nga xam ne lee dafa am shadda ba mu mën a feeñ loolee si nañ koy jànge lay mën a feeñ moo tax muxtalif ay muxtalifun xattan dañoo bokk nañ leen di bindee waaye nag muxtalif dañoo wuute nañ leen di nañ leen di tuddee si làmmiñ ya comme ku mel ni ali ak ku mel ni ulay ali ak ulay nañ leen di bindee benn bi la waaye nag boo leen liiree rek ñoom ñaar am lu leen teqale loola tamit lu mat a bàyyi xel la moo tax li imaamu Daaraqutni taali na si al mutalifu wal muxtalif al imaamul xatibi bagdaadi yeggale na téere boobu tuddee ko al mutanif takmilatul mutalif wal muxtalif li Daaraqutni kasa gën yaatal nag mooy al ikmaal lim ni maakuula téereem boobee nga xamante ne daanaka am dara luy dellu si njuumte yi nga xamante mën naa am si tur yi lu dut moom peeg na ko si téere boobu mu nekk téere bu am solo boo xamante ne képp kuy jàngat war nga say dellu ndax njuum set si tur loola day jeexital si atte gi ngay jox càllale googa si atte gi ngay jox xadis boobee moo tax borom xam-xam yittewoo ko taalif si ay téere yoo xamante ne nii yu bari la yu bari leeral ko si seen téere ya ba si nañ leen di maasee sax da ngay gis ne dañ koy maas maas goo xam day mucc ayib mooy bu ñuy yittewoo maas te tur yi nga xamante ni mën naa am ak wuute wala boog nañ koy jàngee mën naa am ak njumte dañ koy maas si li ñuy tuddee alxarfu mooy araf lañ koy maasee waaye duñ ko maasee shakl shakl jo mooy jëmi maas bari maas ka bi nga xam ne lii fataa la lii kasra la lii damma la waaye ñoom bu ñëwee dañ ñaan bi fatxi awwalihi maanaam maas gi dañ koy tudd arafal ko si ay araf ba nit ki nga xamante ni ñëw na gannaaw loolee du tàbbi si njuumtee si liir gi muy liir tur yooya ndax tur moom nañ koy waxee loola delluwaay ba mooy nañ ko déggee waaye kenn du ko qiyaas moo tax boroom xam-xam yi daal di leeral bunt bi bunt la bu am solo nag si ilmul xadis buntu bu lënt tamit si ñiy jàmmaarloog lu ni mel si gëstu ya ñuy gëstu moo tax boroom wéy bi daal di koy indi si barab bi foofu la ñuy taxaw suñu jotaay bi hada wallahu aalam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من